asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum fu waay mënti nekk soppe xarit am di jàmm ñu ngi leen di nuyu leen ziyaara di nuyu góor ñi di nuyu jigéen ñi macha allah bàyyiwuñu kenn pu soppe nekk rek euh, soxna Maguette Camara madame Camara fekk na la fa macha allah bisu la euh, accolade la fóon la ndax nag kenn amul seen fay macha allah taala euh, mu ngi noonu seen xarit seen soppe. Eh, ñëwaat ci li ngeen bëgg lu ngeen miin lu ngeen di xaar lu ngeen di safoo muy jotaayu jeeg jotaayu jeeg nag ne woon naa leen mu ci wujj ba tey génnagul ci kujje gi am ci réew mi kujje gu ñaaw gi génnagul ci ba tey macha allah taala di nuyuwaat ñëpp rek di ziyaaraan ñëpp eh, di nuyu bu baax a baax eh, sama soppe bopp sama magu bopp soxna Ramata Thiam madame Thiam aw buuru këram tey émission bi yaay boroom aaw buru këram boobu daal euh, xaritu ñaareel tey émission bi yëpp moom laa ko may borom tissu rafet yooyu ca parcelle ñu ngi lay nuyu bu baax di la noonu lay demee ci hôpital yi seen malaat yi nemmeeku leen euh, ñaanal leen yàlla may leen wér ak wér le dugg ci prison yi ñaanal leen ñoom it yàlla génne leen fañ nekk euh, te bañ leen faa delloo ñu jiitu ji yàlla nañu yàlla yërëm ñun ñu fi yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér. sutura teraanga ak mu jug rafet yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal euh, macha allah nee naa leen tey émission bi yëpp aawa yee ko moom mm, waaw jël naa nuyoo aawa yëpp daal teg ko ci loxo madame Thiam rawata Thiam madame Thiam mi ngi noonu ah tey ñu indi leen kujje ne woon naa leen kujje gi daal duñ ko wàcc benn yoon parce que dañ cee gis luñ mës sa gis gis si kaa yu ñu yéem ndax su demee wujj di tam moromu wujjam tam la dëmm jiñ la caga jiiñ la nit ñu bon euh, defe naa ne nag jaratu ko ndax boo ko jëkkër yow ñu takk la ci farata yàlla ak sunnas Muhammad def ci yow li war takk sa moroom àndi ko ci kër gi man dama naan wujj wu moroom moroomam dangaa bëggul sa jëkkër ndax nag boo ne bëgg sa jëkkër am ak moom njaboot yàgg ak moom mu takk beneen jigéen indi ko nga ne danga ko bëgg ba yemale woo ko dara ki mu takk moom bëgg ko indi ko nga di ko fitnaal di ko sosal di teg ci deram loo xam ne baaxul di ko liggéey di ko def jëf ju ñaaw soo ne bëgg sa jëkkër c'est pas vrai jigéen bu ci def lii moroom bu jëm boo ne bëgg sa wujj c'est pas vrai jigéen day jël jëm def ko xarit def ko soppe tey jëlale mën nga ko sax bañ a def xarit ndax xarit yombut ndax man jigéen ñi moom utloo ma leen benn xarit bu seen jëkkër wujj sax mën naa bañ a nekk xarit nag ndax xarit dafa foor waaye nag nekk koo xamante ne mag lay doon ci yow mbaa mu doon ci yow rak waaw dafa am solo day nekk mag rek wala mu nekk rak mais xarit moom na nekk jëkkër euh, kese dong rek doy na ci ah, sa jëkkër nag indi la wujj ñëw ne la takk naa soxna boo dee jigéen ju baax soo dee jigéen bu nopp sa jëkkër da ngay jóg jàpp ba set julli ñaari ràkk sant yàlla xamal ko ne ko nag tey jii nga ma indil kii nga ma indil dinaa ko téye foo xam ne yaakaaree ko fa yaakaaree ko fa woon parce que nag li tax ma di ko téye noonu dama laa bëgg te loo bëgg ma bëgg ko foofa day neex man lii laa gëm jigéen joo xam ne bëgg nga sa jëkkër man damaa gëm ne foo tool da ngay sant yàlla waaye foo tool sa sa mbëggeel da koy suuxat di ko doxal waaye woon sa jëkkër ne ko dama laa bëgg ndax jigéen bu biiram tuuroo ci kër defe naa bëgg na jëkkëram mais bëgg naa sama jëkkër inna wujj duma ko ko may maa ko fi ëpp doole parce que damaa jaboot te jabootul mais soo jabootee te jabootul kooku mën naa ñëw def loo xamante ne moom la ñuy gën a nopp yow te nag jigéen du jiitu ci kër xoole ba yàqu xoole ba lam jiwoon ci kër lépp yàqu wala nga bàyyi bu sa wujj ñëw ngay rattrapé di jàngaat di defaruwaat wala di doog a toppatoo sa jëkkër defe naa amul benn njëriñ kon jigéen ñi nañ ko bàyyi jigéen ñu ci bari dañuy am wujj soog soppi doxalin gaa xoole ba wujj changé la woye di la matati la waaye sax tane na benn côté ndax jéem ngaa soppeeku jigéen nag war ngaa fexe ba woy war ngaa fexe ba mat war ngaa fexe ba fees sa palaas war ngaa fexe ba wujj du la yëngal ndax bu ñëwee day fekk nag lu ne def nga ko ndax nee naa jigéen du bàyyi taas du bàyyi virgule dafa war a topp ba mu sës bëgg jëkkëram ba bëggantuwu ko nopp ko lool nag fu mu toll rek di fësal nobeelam di fësal mbëggeelam kooku dafa am solo mais su indee takk indil la moom moo ci bànneexu yow bànneexu woo ci kon nag ñaanal ko ci yàlla yàlla defal ko ci ndam yàlla defal ko ci sutura waaye déedéet tey ma def fóotlu ngay gis règle atu yàlla jigéen ñaa koy def teg nañ suñu bët nga animé animé animé ba jaare fa ñàkk sa bakkan kan moo la ko teg sa moroomu jigéen te yow bëggu ko la ko teg kon buggoo sa jëkkër ndax nag léeg-léeg góor takk ñaareel indi ci kër gi ñu fitnaal ñaareel ba ba mu téye daanaka góor ga day dox rek mais dee na te yow yaa ko rey bëggatul dara ci dundam ndax nag kee miinal na ko loo xam ne xamal na ko loo xam ne te yow bëggoo ko bëggoo ko woon loolu ah nga di ko fitnaal di ko liggéey di ko liggéey te yow euh, loo am yóbbu ci sëriñ te moom lu mu am yóbbu marché ndugg mu ngi ci ginaar yi mu ngi ci pigeon yi mu ngi ci fruit yi mu ngi ci jus yu neexi ah nga ne loolu dama koy xam ndax la ndaawoo ko def ndax taloo woon sa jëkkër jeeg bu ci démissionné ba ñàkk sa jëkkër ngir yàlla bu takkee wujj indi ko ci kër gi may ko jàmm te nag ku bëgg sa jëkkër defe naa ne man de wujj bu ñëwee bëgg bu ñëwee fekk ma bëgg sama jëkkër lool muy toogi ginnaaw dama cee kontaan ndax sama jëkkër kat daf cee jëlee macha allah euh, dund te it ku ne sa jëkkër dund nga bëgg ku ne sa jëkkër gudd fan sa jëkkër gudd fan moom nga bëgg ànd ak moom ngeen di gudd fan te dund gu baax day dund euh, day day guddal fan su ko defee nag yow mi nga xam ne doo def lu baax bàyyil kii def lu baax mu def lu baax nga ne ca la nga nekk waaye dii déedéet dama lay liggéey ba nga dof dama lay liggéey nga gis règle saa si jëkkër ayee muy gis règle ba ba ba maara day taale ba jaare fa ñàkk ba kanam mbaa nga liggéey ko muy feebar di feebar di feebar mbaa nga liggéey ko ëmb bu mu ëmb mu deñ lan moo ko fa jar yow nga am doom ne kee du am doom lan noo ko fi jar wala kii sama jëkkër daf koo nopp bu fi amee doom ma ñàkk lépp Euh, defe naa ne jigéen ñi nañ soppi doxalin ñaaw na trop man léeg-léeg ma dégg lu jigéen def damay rus damay xoolaat sama bopp damay yëndu sama bopp te jigéen a koy def jigéen ñi delloo si leen seen xel li ma leen di faral di wax rek ne leen amul solo te defe naa ne góor sa jarul lu ñaaw keneen ku dul góor sa jarul defante lu ñaaw li jarul waxante lu ñaaw waxuma laa góor waxuma laa góor kon defe naa ne ñaaw na liggéey atu yàlla ngay sañe ñaari at liggéey la nga sëy fi man gis naa koo xam ne nee na ma ba ma sëy see la ma sama wujj ñaanal taxaw ne ma fii bis boo fi amee doom nangam nga fi am ba tey maa ngi dugg sama ñaar fukki at yoo xam ne aw doom gis naa jigéen joo xam ne lii la ma wax te ba tey amu fa doom te lam ko waxoon ma ba tey kon defe naa ne ñaaw na gis ñoo xamante ne animé nañ ba ñàkk seen bakkan wala ba léegi jëli nañ ci feebar yoo xamante ne kenn mun la ko wala ñu nekk yow ci kër gi te tekki woo fa dara def la loo xamante ne sa borom kër saa yu ñëwee ëtt bi ngay nga koy gisee mais sa néeg moom dootu fa dugg moom sa néeg moom pare na ko sa néegu nawle lay dugg sa nawle di xëy di sangu di la romb te yow xamoo lan la fekk def nañ la jëf joo xamante ne defe naa ne dafa ñaaw ñaaw na kon jigéen ñi delloo leen seen xel ndax lii defe naa ne ñaaw na trop liggéey sa wujj ba jëlee ko ci sëy te yow toogoo fa même boo fa toogee sax jëlee ko fa dafa amul solo ndax fekk koo xam ne tekkewu fañ ko takkee ñëw nañ ne la takk ko nañ ko kon ngal la buñ ko takkee bàyyee ko sa borom kër mu ci bànneexu man dama naan jigéen euh, jëkkëram di am benn bànneex am ñeenti bànneex ko gën soo toogee sax ba xam ne kii takkal ko mooy li gën ci moom nga takkal ko jaamoo ko yàlla nee naa leen fii mission lañ fiy dox kenn toogu fi éternellement mission kese lañ fiy dox kon nag mission boobu jigéen ju ne war ngaa mën a fexam rafet ku ci sa jëkkër yool benn takkal ko dooleel ko ku ci sa jëkkër yor ñaar fexeel mu am ñett waaw dangay ngay da ngay jigéen ñu sëy am ci sa tiyaaba sa jëkkër di ci kontaan di ci bànneexu man defe naa ne tey nga lekk ginaar nga toog fukki fan di dundee keccax man uta la ñetti jabar chaque jour kii ginaaral la moom ak kenn ndax viande blanc dafa baax ut chaque jour rek am foo xam ne boo fa demee macha allah bége ginaar yay jolli pigeon yi ah euh, poisson au four yi Euh, jinjeer yeeg ah, jus de jus de fruit jus de xeetu baax baax yépp ah ñu koy toppatoo di ko massage di dillu si xelam defe naa ne mu ëpp solo di def fi xew léegi macha allah comme bagage yu baax yi may jaay dra yeeg fer yeeg nuisette yeeg xeetu baax baax yépp ku ko soxla nag ma leen di fàttali ne mu ngi fii si madame Camara macha allah ku ko soxla rek jëlal numéro bi incha allah ñu livré la ko euh, yu baax a ngi fi. baara nga fi bépp jafe-jafe bu jigéen am rek bu ñu woowee wax ñu ko incha allah dinañ ci dox lépp lu ci war euh, wu gi ñaaw na dara jaru ko dara jaru ko tey ma liggéey la ba doo fi am doom tey ma liggéey la ba nga tàqalikook sa sago dof carrément dof carrément gis nañ ci koo xamante ne woon jëkkëram bam mu ñëw ne ko diw dëmm la ngeen baal ma ci kàddu ki jëkkëram ne ko ah takk naa ko ba pare de xaw ma nu may def ak moom boobu jàllul mu tegaat beneen plan teg na ay plan di teg di teggi di teg teggi di teg di teggi ba ndaw si jóge fa kon defe naa ne loolu amul benn solo tuumaal nit nga ne nit ki dañ koy tooñ giiru dundam benn kàddu googu fu mu tur nañu di ko daw di ko daw di daw njabootam yow nga toog di tëdd di nelaw di lekk di naan nga ni bëgg sa jëkkër bëggoo ko am na yenn yoo xam ne du mbëggeel ci diggante góor ak jigéen man dama naan mbañeel la mais du mbëggeel euh, bu dee da ngeen a bëgg seen jëkkër yi jaamu leen ci yàlla ku ci yor benn ku ci aaw bu ci nekk na takkal jëkkëram ñaareel euh, xolu jëkkëram di neex euh, xelam di dellu si ñaareel takkal leen seen jëkkër ñetteel di leen leen ci orienté tey toppatoo seen jëkkër moo gën lu ñaaw ndax léeg-léeg kat yow nga ñëw sëy si ci kër fekk ka fa fekk moom saay yoo xëyee mi ngi dem ci sëriñ wala mu ngi dem ci yoo xamante ne amul benn benn njëriñ te yow foo tool rek yaa ngi wut lu neexal sa sëy yaa ngi wut lu toppatoo sa borom kër yaa ngi wut lu jëmale sa sëy kanam déedéet mais ñoom nañ la ko yaaxal ndax jàmm jooju nga am yéenewuñ la ku yéenewul sa moroom jàmm nag doo am jàmm kon nag ku ci bëgg am jàmm yéeneel sa morom jàmm gaa yi ñu gis si wujje nee naa leen suñ ci suñ koy traité atu yàlla du jeex bare na incha allah taala dinañ ci ñëwaat eh, ci beneen eh, épisode Eh, ma leen di jaajëfalaat di kontaan ci yéen Maguette Camara madame Camara eh, jotaayu jeeg ba tey ñu ngi ci wujje wàccaguñ ko benn yoon mais képp koo xam ne bëgg nga xeetu baax baax bu mu ci mënti doon nag ah muy ñu góor muy ku góor muy ku jigéen numéro téléphone baa ngi noonu boo ñu woowee rek incha allah dinañ la baaxee li nga soxla yëpp bu neexee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.